yaakaar bu mag la am ci exploitation pétrole ak gaz bi nga xam ne génnee nañu premier baril pétrole bi ci fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu génn waaye nag bëri na itam ñi nga xam ne am nañ ci xel ñaar ci li jëm ci wàllug bénéfice yi ndax nag jàpp nañu ne téeméer boo ci jël rek Sénégal fukk rek la ci am waaye nag ñi nga xamante ne seen xel màcc na jëm ci wàllu wa jàpp ne dina romb dix pour cent. ci firnde bu ñoon produire juróom fukk jàpp téeméer junni baril état bu Sénégal téeméer boo jël ñaar fukk képp la ci moom waa JV ñoom ñooy moom juróom ñett fukk yi. kon vingt pour cent lay doon au lieu dix pour sax droit douane yi nga xam ne war nañ ko fay. impôts yi waaye itam li ñu dippee l'IBNC nga xam ne pays sous-traitants yi ñoo ko war a fay waaye itam wàllu mi nga xam ne Petrosen am na ci. 80 pour cent yooyu à la fin de la journée ñaata lay dikkaat day dikkaat day wàññeeku ba 40 pour cent pour lu ñuy woowee Woodside en tant que tel. donc si 25 pour yooyu li nekkoon 80 pour cent mën na dem ba nekk 60 pour cent te bi état du Sénégal moo koy am. révision contrat pétrolier yi nag bokkoon na ci promesse électorale bu président Diomaye fay waaye nag laaj bi ñuy samp mu di ndax njiitu réew mi am na ay marge de manœuvre ngir xoolaat contrat yi nga xam ne ci ancien code pétrolier bu 1998 la ñu sukkandiku ngir signé leen bi ñu sukkandikoo nag ci professeur mi nga xam ne xelam màcc na jëm ci wàllub yoon loolee lu mën a nekk la. renégociation mën na possible waaye il faut un écrit ça maanaam dañ koy bind première condition ak deuxième condition maanaam il faut ñaar parties d'accord. depuis fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu weesu Sénégal bokk na ci kuréel bi boot pays producteur petrole yi gannaaw bu Champ Sangomar bi génnee baril pétrole bu njëkk